waa na bon man daanaka li ma war a leeral lépp guy gi leeral na ko man daanaka liiru jaan sax laa gën a bokkal que guy gi parce que liiru lu bari ñoo ko defandoo liiru jaan numéro ba mu gëjee woog léegi ëpp na vingt ans mais sama bopp bi la nekk 534 44 li ci nekk topp xam ngeen ko du dëgg kon xam kooku ku ma fonkoon la du dëgg mais liiru dama bëgg mu defalaat doxinam parce que gis nga boo wootee ni yow maa nga monument waaye dafa am noo am noo noo war a doxee du dëgg maanaam bañaluma ko loolu mais Balla Gaye mi muy wax euh, ak Dieye production may wax man la ma leen jariñ ak la ma participer seen carrière ñoom ak la ma dund ak ñoom dund ko ak ñoom Balla Gaye 2 bu ko commencé tudd maanaam at yi passé la matul ñaari at bi mu commencé wax liiru jaan mënuma géejawaay Balla Gaye 2 kombaam dama ko daan jàpp géejawaay à part à part Alioune Seye ak Balla Gaye géejawaay Abdou Diouf rek lañ daan dégg ñoom ñëpp bu ñu bëggee làmb man maa tax liiru jaan day wax mais man maa ko mag man xam nga ñooy ànd waaye maa ko mag ay weer du dëgg damay noppi xam li ma xam bu ñu bëggee bëree kon man la Balla Gaye dañ ma daan jël si mënuma daan ma jàpp di ko daan di ko daan Balla Gaye xam nga am na comme yoo xam ne man ak guy gi ñoo daan ñëw di bëree di boobu mënul dara ba yàlla def mu àgg fii kon Balla Gaye participé ci carrière am sama cicatrice bii ci combat ak Yékini la combat Balla Gaye Tyson man Tyson fi muy entraîné boobu man ak Aliou Seyde mi ngi am combat maa ngi am combat ba 4 heures du matin heure boobu Tyson boobu Tyson mu ngi ànd ak Aliou Mané ñoom Eumeu Sène xam nga booy Pikine yëpp fi mu doon nekk ak ñetti ay sëriñ lañ àndal miine foofu yëpp ndax Balla Gaye 2 Thierno Ndiaye du ma weddi kon Balla Gaye guddal naa ko bëccëgal naa ko Dieye production muy wax Dieye fa ma jaar ak moom du fa jaar ak moom du ma wax Dieye premier doomam xamu ko man maa ko ñoo ko ngénte jamono yooyu cuisse neex na cuisse de poulet maa ngi ti leen mi ngi ti leen yàlla def cuisse jour boobu ay ceebu cuisse lañ doon togg doom jooju ñàmbe gaañu na yàlla na ko yàlla xare àjjana du dëgg li may wax nii duma ko seetaloo kenn Seynabou aaw nja aawoom sama place lañ xamante boobu jéey moto la yor daan ma yóbbu ci ci ci ci place ci saalu Habib Gueye du dëgg xam nga ami li may wax jabaru njàmbe yàlla na ko yàlla yërëm moom day seede jéey man maa ko indi géejawaay du dëgg jéey bi mu commencé couleur rek liiru jaan matul juróomi at ci ginnaaw ba ñu xamante yàgg mais alam daal li may wax ni seede na ko mi ngi mi ngi États-Unis mi ngi mi ngi Espagne alam laa daan jël par weekend ñuy dem kër Medina dem kër kër kër kër kër di dem kër kër jéey xam nga di fa di fa yendu jéey ñëw di ma ses jéey bi ñëw géejawaay du gisul kenn ma la naan gis tu dëgg kon ñooñu muy wax fa ma jaar ñoom jaaruma fa ak moom mais lu dama koy dénk rek ñaari baat du dëgg maanaam même rakkam yu jigéen day njaay maanaam ku ma fonk la mbër su may wax baal ma nga dimbali ma rek bàyyi ma wax du dëgg parce que man bëgguma maanaam su may wax nii day mel ni damay dem di wax te man awma temps loolu parce que man Sénégal moo may déglu wax yi sax bëgguma du ci di ci dugg xam nga liiru fa ma jaar ak moom man xam naa moom xam na du dëgg jàmm rek laa ko yéene yaayam nday njaay rakkam bu jigéen man daf ma fonk fu ma gis taxaw waxtaan ak man yaayam tamit noonu yaayam dëkk nañ suñu kër kër gi nekk ni sama kër yaay tabax nañ ko dëkk dëkk nañ fa at ñu abal leen ko du dëgg te ba mu fa gëjee yàgg na mais teewul xam nga jàppalu ko dara mais nit buy wax day wax te yàlla tax billaahi wallaahi kaamil bii laa wax liir bu ma ñëwee ci aéroport bi ñëw naa kaf ak moom xam nga ba sànqare bi may jël maa ko sànqare mu ne ma ne ko sa doom ndey liiru jaana ngi ne le xam nga kon xam nga kuy wax loolu man jàppale ma ko dara bi problème bi amee benn problème bi fa la ma fekk du dëgg bi muy saaga guy gi waxuma damaa jóg dem parce que xam naa sama bopp te liiru kii sama xarit la liiru sama xarit la du dëgg guy gi su deful woon lu dul noonu dama koy woo dal ci kawam mais ci tànk-tànk dafa woo jéey bi mu woowee Pape Mama Pape Mama woo ma jéey woo ma ma wax ak moom xam nga ni ko amul problème man dinaa wax ak ñoom comme que demee nii man dama naa bàyyi bu ma xëyee dafa guddi ma wax ak ñoom liir bu mu xëyee dafa romb nuyu ma xam nga ci laa toog ma jàpp sama ñaabur mu amaat problème ak guy gi ma nekk su ma nekk ci kaw yàlla rek moo tax may wax ma nekk su ma nekk ci kaw guy gi mii ñuy werante mu saaga guy guy gi woo ma ni ma mbër man de wax dëgg yàlla liiru jaan bëgguma mi ngi toog di ma saaga te kat man kilifa laa ma ko mbër mun ma ma ne ko yow ak liiru bokkoo leen liir bu la saagaa bàyyil noonu naa la jox numéro jéey nga waxtaan ak jéey mais bul nekk di kii ak moom yooyu man dinaa wax ak moom comprendre nga mu xëy nuyoo maa ko wax mu woo Pape ñëw ma wax ak kii mais bi mu xëyee ñoom nuyu ma comprendre nga kon bu mu waat waat dafa fort liiru man wax dëgg yàlla jàmm rek ñun amul lu ma koy siis man moo gét bi ñuy xamante yàgg na man ba may tukki xaw ma moo gét isam la moo géet États-Unis lañ xamante yàgg na comprendre nga mais dafa am loo xam te ni moo géet li may wax géej la comprendre nga ku ne ku ne mën nga sangu génn sa morom sangu du dëgg mais gis nga nit maanaam day wax te yàlla tax comprendre nga liiru maanaam xoolal wax ji xam nga maanaam na koy seetaat comprendre nga man suma xarit la du dëgg te vraiment awma daraay ki lu ma ko yéene parce que boo yéene nit ki ñaan da ngay yéene koo xam daf laa raw wala daf laa tane man ba may yor ay téléphone bu cher kenn yoru téléphone bu cher ba may tabax kër fi ma dëkk kenn tabaxul ba may tukki mbër yu bari tukkiwul comprendre xam nga lu am lu lu mu am lu ne sama ginnaaw la ko amee kon dafa am loo xam ni nit maanaam na bàyyi boo waaye ba ni nga mu ni maa nga Sénégal la déglu yow waroo nekk di xuloo wala ngay xeex wala ngay def li remarqué naa ñeenti dëj yoo xam ne dafay dem di histoire xam nga loolu asuma Las Vegas ah liru dëju daaw da sekk bi histoire na fa saaga ndey ci dëj ku gaañu dëju ñoom les deux bi barki alxuraan li may wax nii ak lu bu dee amul yàlla bu ma jariñu xam nga kaami la ngi nii dëj ñoom les deux bi histoire na fa ba pamma moo ko jël yëkk di may ko xaaj mu noppi dëju Balla Gaye 2 bii moo ko Lamine Golo saagante nañ fa ndey ci kanamu jéey Balla Gaye 1 ah dëju anniversaire u père bi saagante na fa ndey ak nit xam nga ci kanamu Balla Gaye 1 Balla Gaye 2 moo tax ma ni gis nga àdduna liiru na xoolaat doxalinam du dëgg man aw ma daray kii ñaan lu ma ko yéene mais bu naan man dama ko bañ wala dama ko kii loolu du àdduna du dëgg sooy bañ da ngay bañ koo xam ni sa nawle du dëgg ñi muy xeex ñëpp li may ñi muy wax ñëpp maanaam man géejawaay la nekk du dëgg li may wax nii man du ma waxantu man géejawaay ñoo nekk suma ginnaaw du dëgg maanaam làmb da ngay toll comme li ma rek maanaam boo tollee nii da wàcc keneen yéegaat du dëgg loolu mooy àdduna man dama fi nekkoon ay mbër ay Balla Gaye fi nekkoon Aliou ñoo ñu dem nañ ma yéegaat après Lac de ñeneen ak ñeneen guy gi comprendre nga mais man boo duggee ci YouTube bi samay par ma palmarès ngay gis ma dem fu ne muy Europe muy état fu ne ma jël fa raaye indi du dëgg kon man man dama bokk ci géejawaay moo tax ma bëgg rek mu Balla Gaye 2 man suma xarit la dafa ma fonk du dëgg Balla Gaye 2 ñooy bokk di entraîné ba léegi du ñooy bokk di ànd di xam nga moom ak saa kees kon dafa am loo xam te ni Balla Gaye de xam ne ni muy man muy guy gi amul dara luñ ko dencal barki alxuraanu kër guy gi mii lu tax mu fonk du dara de du lu ma jox du dëgg oto bi may dawal maa ko moomal sama bopp fi may nekk xam nga mais guy gi lan la tax mu fonk guy gi dañoo bokk ñaari yoon journée ñaari yoon yàlla def mu ma am ndam man ma am ndam ñu daja may defar sama oto moom muy defar boobu Mercedes la yor ñu daje ci mécanicien ci buuba Euh, Pape Diop xam nga bi ñu demee ma am pièce ma war a changé événement tabaski yow may weranteeg sa waay naan ko defar ko mun a ma sa waay ni ma non doo defar pièce bi ma ne ko changé bu ma ko changé loolu ma xaay defal ma ko mu ne ma da ngay changé bi noppalu guy gi bi mu déggee loolu barki alxuraan dafa dem yox su ñëw génn 100000 jox ma ni ma yow jigéen di wuloo ma du dëgg te mënoon na ko ci bañ a fekk xam nga imaginel man loolu tax ma jàpp ko te te nitu lu mu la wax tàng ne bépp tàng mais foo ko fekk alxuraan lay déglu kurus gi mi ngi ko gàccoo xam nga dëkk nañ Las Vegas man ak moom ñoo dëkk du dëgg man ak moom ñoo du dëkk liiru jaan dañ ko daan fekk ci benn kër gi comprendre nga kon dafa am loo xam te ni xaju fi xam nga gis nga nit waroo wax sa ci internet di saaga ndey di kii nit même boo respecté bopp nga respecté nit ñi du dëgg xam liiru dama koy xamal ni ko xam nga man awma daray ki ñaan bu ma koy yéene barki alxuraanu karim liiru yaayam dafa baax comprendre ay magam ay rakam dañoo baax comprendre nga xam nga maanaam dañoo bokk ay nit te loo xam ne lu ñëpp bokk kenn mënu koo xaaj muy géejawaay gi ñu bokk kon nañ rafetal na bàyyi coow nay wax monument boo nee monument de rafetal mais bul ni monument ba pare fu ñu la fekk da ngay xuloo di xuloo la nit di jaxase loolu baaxul ah liiru dama bëgg na na maanaam na dal xam la moom comme que yàlla def nit ñi bëgg nañ ko xam nga fu mu nekk day kaf day ree loolu nag na ci boole di dal di defar bañ a xas kenn waaw man su ko guy gu tooñoon barki alxuraanu karim dama naan eh guy yow nekkuloo ci li nga def du yoon mais li ma fekkee benn bi ma fekkee moo ko saaga ndey xam nga saaga ndey la ko def ma jë maa jël guy gi ni ko bàyyi noonu mu sedd deuxième bi fekk ma sama biir néeg la ma fekk guy gi woo ma wax ma xam nga woo ma wax ma ma ne ko bàyyil noonu ci laa ko wax kon xam ni kooku di wax loolu man diiru liiru warul waat waat dafa fort buy waat naan ñii dañ maa bañal dañ maa lii dañ ma lii liiru ku xam ni sax ma ak moom deng sax dalay jéem a wax ay wax te àdduna du noonu liiru ma nag moom déggoo man la dañoo yarandoo defandoo lu ne comprendre nga xam nga moom xam na yaayam xam na ñi ma dëkkal xam na du dëgg liiru daaw la commencé tukki mais imagine nit dem na états ni ñëw liiru ñu wax dégg ko internet yow yow sax lañ ci Lamine ñëw naan li ma li may xam su ma ko waxee gis nga àdduna Europe sutura la du dëgg gis nga ñun visa amoo droit liggéey du dëgg mais boo fa nekkee bul sax ni maa ngi liggéey neel maa ngi sumay business du dëgg parce que gis nga loolu yow yàlla may na la visa mais ñeneen ñi nga xam te ni amuñu visa yaa ngi leen yàqal moo tax sutura dafa baax am a neex loolu tax mu mere ko ni ma liiru dem na Sénégal benn yoon taxaw mbër yi lu ne ma wax mbër yi ku ne day day duwul xam nga loolu du noonu xam nga maanaam na xam ni ñun ñëpp géejawaay la benn bopp la kenn xam kenn mënu ko xar ñaar mais coow li comprendre nga na bàyyi loolu nay defar comme que monument la dem na ba Balla Gaye ni ko monument de Guédiawaye monument warul di sax tontonte ku ne benn mënul fukk ko wax mu tontu la saagal na man xale yëpp ma respecté man du ma toog booy yi sax nañ maa rus parce que xam nañ man sama wax bëriwul comprendre bu dee liiru jaar nañ fu nekk man ak moom xeex nañ coow yàlla def yu si bëri jéey moo ñu jubale comprendre nga mais dafa am loo xam ni liiru xama dama koy xamal ni ko moom na dal xam nga su nit la suma xarit la jàppalu ma ko dara du dëgg jéey sax démb waxtaan nañ man ak moom xam nga jéey it dëgg la man ak moom am na fu jaaroon seytaan affaire xale comprendre nga am na fu ñu jaaroon ma téye suma bopp mu téye boppam mais dem na ba xam nii kat xam nga ah seytaanee bari doole yàlla def xam nga lu mu jàpp lu ma jàppoon ma bàyyi ko moom lu mu jàppoon bàyyi ko ba duma ma toog ñaari semaine yoo xam ne bi may dem États-Unis bii paas rek ci jour bi laa ko wax dafa ne ma xaaral ma jox la loo yóbbaale argent de poche barki alxuraanu karim yëkkati ay euro sax la yëkkati jox ma xam nga avant boobu toog na ma woo ma téléphone ni ma foo nekk ma ne ko dama génn mu ne ma maa ci kii génnal génnal ma ne ko non dama génn après su ma ñëwee woo la mu waat ma ci ngoon gi génn ni ma yónnil kenn ma jox xaay mu yëkkati xaay bëri jox ma barki alxuraanu karim kon dafa xam ni man te loolu jéey lu ma defal jéey bu yëkkoon kër ak oto jox ma du dëgg maanaam ay mbokkam dina xam ni loolu seq nañ ko parce que yaayam maanaam mi ngi ci dëgg maa ngi ci fen yàlla na ko yàlla yërëm muy ku baax jéey ñu njëkk dem këram ñambe seen moom fa yóbbu boobu amul dara yaayam bu jóge woon dëkk ba barki alxuraan day ñëw indil ma salité ñëw laajte kër Abdou Diouf géejawaay bu ñëwee sama kër ma taal sama oto yóbbu ko këram du dëgg mais jéey bu demee ba am tur boo xam ne aw ma ko géejawaay kon xam ni loolu vraiment sama mission àgg na bi muy dugg ci làmb man maa woo Abdou Lahad Bekaay Mbay maa woo Samba xam naa ne ñoom fàtt nañu loolu xam nga man la daan yóbbu làmb am na ñeneen ñu mu daan yóbbu mais yàlla def man la daan yóbbu otoom laa daan dugg comprendre nga boobu mi ngi soog am oto otoom laa daan dugg ñuy dem làmb jéey bi mu jógee store R19 la ko njàmbat jëndal boobu benn gone yoru R19 boobu yàlla def na maa ngi xaalis maa ngi nekk maa ngi suma xam nga maa ngi suma teraanga du dëgg kon bu ko yàlla mayee tey macha allah faalewul moo gét faalewul kenn du dëgg kooku yàlla na yàlla xeeb dool yi parce que xam naa ne li mu am ni mu doxalee ni mi ngi koy dox doomu aadama yi parce que dañ naan xam nga dëgg la nag parce que sa nit di àgg ak moom foo xam te nga leer ni am na ko mi ngi dem di defal fële yow nga laaj ko joxlu man kooku bu doon man damay damay toog jàpp suma ñaamam du dëgg parce que man yàlla mi may teral du dëgg def ma lu ma amul fa may la ma fa ma dëkk du xaalisam maa ko def dëgg ak yeneen ak yeneen oto yi may dawal du xaalisam maa ko def du dëgg mais dama xam ne ni day def lu baax xama te loolu muy def nii yàlla na ko ci yàlla yokk waaw mais moo génn nag maanaam dama koy xamandikoo moo Gates dafa nekk nit koo xam ni maanaam man xamoon naa ne milliardaire lay nekk du dëgg parce que dafa nekk koo xam ni billaay wallaay yàlla rek moo tax lu mu yor doomu aadama yee ko moom lu mu yor doomu aadama yi bi mu ñuy ñëw di ñu indi ñun ñëpp kenn yëgul yëgantewuñu du dëgg mais man maa ko présenté guy mais fi mu ni mu fonkee guy gi ak fi mu teg guy gi tegu fa kenn ci comportement guy gi la guy gi nit ñi wax nañ ba sonn mais man maa wax te jox na ma cër boo xam ni lu mu wax ak man lu ma ko wax da koy def du dëgg kon bu yàlla defee xam nga ñun nañu rafetal muy am a neex muy ñun ñu bokk moo géet comprendre muy ama neex muy muy muy muy muy mobile xam nga ah, muy muy muy muy keneen ak keneen ñun ñëpp ñoo bokk man ak euh, ama neex moom mi muy wax jour émission bi ama neex mi muy wax bi kii defee loolu dama koy dëggal ama neex bi muy saaga ndey kii naan ko da ngaa cuub sa drapeau kii waroo ko ñëw naan ko ay yaa ngi jël sunu mag kon warul toog moo ko ama neex kon warul ñëw daan ni ni maa ngi nuyu am a neex ñi si des du mu leen nuyu loolu war ko parce que ñun ñoo bokk géejawaay même bu amee nit boo amee loo naqari waroo ko fësal ci ay média guy gi mii am na loo ko naqar ci guy gi di am na loo ko naqar ci liiru ja te bi mu amee dafa dafa taxaw wax loolu ci kaw gërëm ko kon moom waroon naa ñëw ci plateau bi ni kat maa ngi nuyu ñi nekk ci plateau bi ba pare xam li ma xam loolu la mais gis nga ay affaire u defante amul njariñ amul njariñ ñun dañ see jaar man dama la xool Espagne tëdd naa fa tëdd naa fa tëdd naa fa kaso tëddati fa ndax sama xadar du dëgg mën police daan dox sax ma tëb dóor la xam nga tëdd naa fii 100 kon bu dee man fit yu ma yàlla jox barki alxuraan du ma ko ndamoo du dëgg mais xam naa ne li nekk ci man am na ñu bari ñoo xam ne nekkul si ñoom mais su ma demee ba toog dal xam ni kat àdduna amul solo du dëgg xam nga ñun ñëpp benn lañ du waaw mais daal wax ji maanaam du lu lu bari xam nga moo gee dañuy leeral rek. dañuy leer rek mais moo gét ci boppam ñun ku mu woo te dafa am ñoo xam ne dañoo soxor de ñi muy déglu eh, Sénégal dafa bëri ñu soxor moo gét ku mu woo nga wuyu man sécurité mooy suma liggéey depuis 2006 Espagne dama ko xam ama neex coow li ma li ma dégg mook mook mook mook mook mook booy kii jëf jël man bu doon man du am sécurité man dama ko jàng dama ko xam du su ma wooyee dagal ma billet ma ñëw ay dàllam yéreem su ma ko teeloo ma teew dugal ko sama poos du dëgg loolu du question ñàkk fayda moo géet ñoo ko mbag mais kilifa la da nga koy nangul du dëgg ama neex d'accord xam nga juum na mais jëf-jël ku baax la jëf-jël maanaam ku baax la daña nañ banque ba moo géet daña nañ banque bi muy jox yenn waa kër ñaseen yi ñu daja banque bi tëj banque bi moo géet dugg man ak ama neex dugg ci biir banque bi jëf-jël ñëpp xam nga waaw bi ñu duggee bi ñu duggee ci banque bi bi ñu duggee ci banque bi euh, amat ñu tëj banque bi xam nga fekk heure bi dafa jot 4 heures booy kii ñëw euh, mobi kii euh, jëf jël ñëw fëgg woo ma fekk maa ngi toog ama neex ngi toog sama kanam bi mu fëggee ni ma mbër baa la tijjil ma ma tijjil ko bi mu ñëwee mu nuyu ma nuyu ama neex fekk ni ma cegam bi la bëgg a cash xaalis bi la bëgg a récupérer quoi bi mu ñëwee xam nga nuyu ma nuyu ama neex maanaam nuyul moo xama kon dafa am loo xam te ni kon man xam nga man lu mu joteeg moo moom la mais jëf jël li ma wan mooy lu naas man loolu laay dund ak moom mais ama neex dëgg la nag xama warul woon dem ak fugg waroon na ñoom naxtaan ak moom mu génn hôtel bi du dëgg waaw mais xëy na juum rek la mais ñun ñëpp ñoo bokk moo génn nañu raxas nañu raxas xol yi waaw nañu raxas xol yi ñun ñu bokk muy man muy liiru jaan muy guy gi comprendre nga xam nga ñun avant moo ñun ñu am teraanga moo moo moo avant moo génn ñi ngi tukki ñu ngi ñëw ñi ngi am teraanga du dëgg kon nañu rafetal liiru amul lenn luñ koy jox rek ñun dem nañ fu ne dem nañ France dem Canada dem fu ne comprendre xam nga fu ne dem nañ ko àdduna bi moom yàlla def ne daaw la ko yàlla wërsëgal xam nga mu dem kon nañuy rafetal nañuy rafetal xam ne ñun ñoo bokk ndey ak baay dama nii numéro ba mu ko gëjee woo ëpp na vingt vingt ans laa la wax barki alxuraanu karim mais jàmm numéro ba léegi suma bopp laa ko def 534 44 yow xam nga. deux ak lu ci topp. comprendre kon xam nga ni xam naa bëgguma yegg egg numéro jàmm loolu rek laay wax kon maa ngi jégalu. alors Mbër ñu waxtaan récemment ak sa sa grand Rod daal di a dellu si jàmm nga ni na jóge foofu. waaw déggoo ma ne Lirou Diane guy gi day wax nii rek mais. xol xol bu rafet la yor Balla Gaye 2 maanaam ak keneen ak keneen comme que Balla Gaye moo tax mu naan moo ko tuddee ni ko mooy mu ni mu wax géejawaay comme Balla Gaye loolu bu sañoon géejawaay yëpp nekk benn. du dëgg parce que ñu nekk ci ginnaawam ku mel ni al Aziz Ala Ndiaye kooku yàlla def ni defar rek lay def du dëgg kon jéey bi mu waxee démb sax dafa ni ma ma ne ko non mais faaw ñu leeral parce que bu ñu leeralul day mel ni ñu dañ ko soxoree te soxore ko. booy soxore da soxore koo xam dalaa tane comprendre nga ñun amuñu daray ki ñaan lu ñu soxore liiru xam nga liiru xam naa man xam na du dëgg defandoo nañ lu ne mais comme li wax suma grand frère li mu wax lu am solo la xam nga buñ defee lii jéey xam nga dinañ toog pam mama toog xam nga ah kilifa yi yëpp toog xam nga man guy gi moom maay wañaar waxoom ñu toog lépp nekk benn géejawaay combat yi njublu yàlla may ñu si ndam waaw muy suma combat Gris 2 combat bu ma fogg la waxuñu si nag mais combat la boo xam ne gis nga combat bi ma daanu sarax la ndax ñëpp xam loolu de <laughs> sarax la mbër yi dama daan ñëw koo bëreel koo ne Abdou Diouf mun a déet bu ma ko jox seetal keneen xam nga te bi ma ci daanoo Forza dama ci sant yàlla parce que man ba ma gëjee génération am naa sama doom bu ndaw sama doom boo xam ne daanaka am na 10 ans ëppal na 10 ans musul gis sama defet ci boobu la ko gisee waaw ëppal na 10 ans kon dafa xam ni génération bu ndaw bi sama defet bañ ko depuis tafaatin lañ ko gëj a gis te Tafatine ba may bëreeg moom maa ko raw confiance dama koy dàq muy daw ah xam nga defete ñëw du la xam mbër yi ñu fiy coow yëpp ñi ñu fiy coow ñu ñu fiy teg yëpp dama leen jàpp daan leen du dëgg mais combat bi ma daanu sant yàlla waaw guy gi daal dama koy xamal ni ko jullit la du dëgg te xam naa ni da doon tegg tuuma mais géejawaay xam nga dinañ waxtaan ñun ñëpp muy Balla Gaye 2 muy Lac de Guiers di remercier ak Lac de Guiers parce que dëgg la kase bi mu bëree bëree bu moo ko mais tamit ku am kóllëre la boo waxee naan Abdou Diouf mooy suma mag mooy suma tëdd fil heure bu ñu ko déggee micro kon maa ngi koy ñaanal yàlla may ko roi des arènes comprendre Alioune Seye 2 tamit mu nekk su ma rak ku ma jox cër du dëgg xam nga ñoom Alioune Seye junior booyu Ikri yëpp vraiment booy yëpp maa ngi leen remercier xam nga xam ni àdduna amul solo du dëgg waaw di remercier ñëpp suma doom day Amady Ndiaye xam nga di remercier Euh, Pape moom kenn la ci man kooku boo déggee ma ni maanaam dama ko defal ma ko dara parce que Pape Maman comme li ma dal si jéey loolu ma dal ci moom bi may dem dama koo tàggu barki alxuraanu karim mu ñëw ni ma ñëwal ma yëkkati xam nga fan nga nekk ma ñëw mu ne ma xaaral ma boole laak diw nit la xaalis kon man yàlla def ma booleek ay nit yu baax du dëgg man am na ñoo xam ne Sénégal mën naa fa dog euh, deux ans di dawal sama oto di sant yàlla du dëgg xam nga kon dafa am loo xam ni xam nga man nit ñee ma bëgg kon am na yoo xam ne waruma maa ngi jégalu nag bu dee kàddu gi xam nga dama dindi rek waaw bu dee kàddu gi ñaaw na xam nga maa ngi koy jégalu bu baax bu dee rafet na ñun nañ ko maa ngi koy fexe ñu bokk ak ñëpp waaw baax na jërëjëf. Thank you.